nañu ànd ak seen dong ya yor jox leen i gopp ñu bay ca mbedd ya ba balekat yi mën koo bale kon sëñ daara yooyu itam bàyyiwuñ ci benn sëñ daara boo dëkkee ci biir dëkk bi ndax li fi nekk ci ay daara kenn ku ne say dong soo ko génnee ànd ak mbooloo mi dana yomb lool loolu tam sëñ baa leen soññ bu baax ngir xam ne liggéey bi amul góor amul jigéen amul sëriñ amul taalibe liggéey sëñ tubaa amul kenn ku mu war bàyyi moroom ja ñëpp la war ndax ku jariñu sëñ tubaa tax nga jariñu kon sëñ baa ngi ñëpp di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm ñu delluwaat di ñaanal sëriñ bu mag bi Cheikh Amadou Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ba yéene ji nga xam ne moom la am te di ci xëy ndax nit day yéene te du man waaye moom daa boole yéene ak di jëf yàlla na ko yàlla jox kattan goo xam ne musu koo jox kenn ci ku sant Mbàkke ba liggéey bii mu naal lim liggéeyal bëgg a liggéeyal sëñ mu def ko tan fekke ko ànd kook jëwrinam ji sëñ Cheikh mi nga xam ne jëwrin la ci nun ànd ak nun ci liggéey bi ne suñ kanam di soññee guddi ak bëccëg fu nekk mu nekk fa li ma doon wax rek mënoon naa toog ne sëñ Xaadim mii sëñ sëñ Issa dem leen ca dem leen ca liggéey ba man ma toog ca kër gi lu ngeen ñëw wax ma ko waaye tegu di leen ko bàyyee da cee ànd ak ñoom rek kon sëñ bi noonu mu taxawee ne suñu kanam jëwriñ ju ne ka nga ne ci kanamam noonu a taxawee soo ko taxawee rek liggéey bi dana yomb lool sëñ Abo ñu ngi lay nuyu baax ndax keroog xam naa ne da ngaa waaye sëñ bi mi ngi lay nuyu baax a baax di xam ne eh, moom yëg nga liggéey bi soññee nga foofa itam suñ bokki Mbàkke itam sëñ bi waa Mbusoo bi ca Mbàkke seen ndaw li ñëw na xam nga sëñ Bas Buso yàlla yàlla yokk leeram moom nga ko daan àndal mu daan ñëw di di ci nekk waaye ba mu fi jógee dem sëñ Thierno ak waa kër ga ñëpp dañoo takkuwaat rek fa sëñ fa sëñ Bass teggee woon tànkam rek fa ñu ko tegaat ñoom ñoo ngi leen di gën a soññaat di soññ waa Mbacke gépp ak waa Daaru Salaam Asseynou Touré naka jekk moo doon jëriñ ji nga xam ne day ne ci kanam gis naa ko sànq kon ñoo ngi xam ne waa daa waa waa waa Mbusoo bi ak waa Mbacke xewar ñoo ànd te loolu ànd bu yàgg la loolu tam sëñ bi noo ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay yooyu yu démb ya waaye ak taxawaay yii di soññaat nag dëkk yii nga xam ne sëñ bi daana ko wax mu wër dëkk bi ñu tàmbalee ko ci Madina Touré nga xam ne ay bokk lañ ay taalibe lañ waaye nangoo ànd ak sëñ bi ci liggéey bi ak misara maam Balla nga xam ne moom bu sëñ bi jógee ñu jóg ñoom ñëpp dañu daan takku ànd ak ànd ak sëñ bi ci liggéey bi jële ay oto nekk feek ñun ak waa Daaru Musi sëñ Bass Abdou Khoudous sëñ Abdourahmane yàlla na yàlla ko leeram daana ñëwal boppam ne ci waar wi ne fi ba liggéey bi jeex mu doog a ñibbi duñ xam ne sax ñëw na loolu lépp luy wane mooy liggéey sëñ Tuubaa di leen a ñor rek ndegam njaboot googu nga xam ne mooy njaboot sëñ Tuubaa gi nag ñoom la liggéey sëñ Tuubaa bi ñoree nii ñun wax ma laa ñu mosal nu ci dara ñu doon ci kon ñun dañoo war a futtiku ne ci naaju guddi ak bëccëg ba liggéey sëñ Tuubaa bi ni mu bëggee mu am ko kon noo ngi soññ tam li wér lu weesu ci xur wi tàmbalee ko yaañ boofeel ba ba ndiliki kànka wuñ fenn aafe guy aafe gent mbooleem dëkk yooyu nga xam ne dañoo wër Mbàkke te war a ñëw Tuubaa ci liggéey bi sëñ bi nee na fàttiwul mu ngi leen di soññ baax di soññ tam suñu bokki taayif yi nga xam ne dañ daan jóge taayif di ñëw ci liggéey bi te sëñ Saliou Lo daan ko jiite yàlla na yàlla yokk leeram moom itam daana jógee taayif ànd ak sëriñ Mbay ñoom ñëpp ñëw ci liggéey bi ànd waa bay Baylaay ñoo itam sëñ bi nee mi ngi leen di soññaat bayiwut benn dëkk ci dëkk yooyu nga xam ne dañoo wër Touba ak boole ci waa Ndindi ak waa Boko dañ leen daan soññ waxtu wu ne ci liggéey bi ñoom it ñu ne ci ànd kook sëñ bi sëñ bi nee na dëkk yooya bayiwu ci benn dëkk mi ngi soññ ñëpp kon nag diggante kër Kàbb Kéré Mbaye ak mboolem dëkk yooyu rek sëñ baywu ci benn na xam ne daal mboolem li wër dëkk bi Daaru Rahmaan suñu Abdoulahi mboolem li wër dëkk bi sëñ bàyyiwu ci benn kër mi ngi soññi ñëpp ngir bëgg liggéey bi ni ko sëñ bi bëggee rek mu amee ko noonu lool da ko tax mu ciy sonn waaye xam na ne su ko waxoon waa Touba toog itam dañ ko def waaye nag kenn ku ne mantee jariñu dafa baax ci ab taalibe kon ñoo ngi sant ñëpp di ñaanal sëñ bi yàgg fi te wér sëñ Cheikh noo lay ñaal baax itam nu yàgg ànd ak yow ci liggéey bi nga yàgg jëri ndigal la ci sëñ bi indi ko ci nun nu ànd ko ak yow ba bu noppee nga joxaat ko sëñ bi ne li ma doon liggéeyloo ñama kaan doon liggéey nañ ko loolu tam yàlla na yàgg te sax yàgg nañ ko tàmbali boobu ba léegi mi ngi rafet nam daan rafet yàlla na gën a rafet ren yàlla nan fekkee màggal gi ci jàmm te sëñ bi indil nu xéewal yëpp yu mu daan indil te yàlla moom du jeexal dara yàlla moom nit ñi ñooy ñaan di yemale fenn ñaan waaye yàlla moom amul lu muy jeexal te fépp yàllaa fa nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi yëkkati sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdou Latif di mu Cheikh mun Muntaxa ci liggéey bii di nuyu mbooleem mbokk yi fi teew yëpp ak fu waay toll te dinu déglu ñu ngi nuyu ak ziyaara sunu bàjjan soxna Astu Mbacke moom sëñ Abdou borom dër bi bi nga xam ne moo ne ci kanamu soxna yi xam naa kàddu yi day ndigal rek waaye daanaka man nanoo wax de matu ko woon ndax li ci mat a wax lépp sëñ Mourtala si wax na ko am naa la cay dolliku ak la koy jotal sëñ Cheikh dana ci ñëw euh, kon bu ñu joxee ndigal daal li ñuy wax mooy ñi ngi soññ sunu bopp di soññ mbooleem mbokki taalibe murid yi ci liggéey bi nga xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa te mooy settali dëkk bi waajale ko màggal gi muy liggéey boo xam ne ñu ngi bëgg a yàgg duñ ci gan di liggéey bu am solo solo yi zaahir yi rek mënee su ko lim du ñu ñëw nag ci solo yi baatin bi waaye jàpp nañ ne daal amut lu ko gën a far amut lu ko gën a ñor te itam mënu yàlla musalee ci seytaane bu nu fekkee liggéeyu sëñ Tuubaa bu toll nii te ne ay jullit lañ ngërëmul sëñ bi la ñuy sàkk warunoo nangu kenn ñu ci ku ci ne it am na loo ci man kon ku ci man ay man-man yu bari ngëneel la ci yow nga def lépp ku ci man benn man manit it nga fexe ba def ko lii matu a def daal mooy maandu ci wala nga jàpp ne taxu ñuy wax wala nga ñekk cee doon dara kon ñu ngi ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm ñu defe ko ni ko sëriñ bi bëggee te daje cee ngërëmul sëñ bi te ñu ngi ko ci yaakaar bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ bi ñoo ngi yëkkati suñu kàddu di la nuyu di la njëkkee ak ñaan di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér gannaaw bu ñu ñaan la sëñ Muntaxa di yëkkati suñu kàddu ci turu sëriñ Cheikh Bara mi nga xam ti mooy kilifa fédération bi nga xam te moo ñu fi yëgal ak soxna Waalo Mbàkke ak sëriñ Abdou Aziz Lo sëriñ Mbay Seck moo waroon a teew mooy suñu président waaye yàlla dogal teewu fi kon man maay jël kàddu man mi topp ci moom di la xamal sëñ bi am na loo xamante ne nii bëggoon nañ ci ndimbal gannaaw bu ñu la ñaanalee ñaanal mboolem ñi nga àndal liggéey bi di rafetlu seen doxin ñu xam ne guy mbind yàlla dafa dogal mu bokk ci quartier yi njëkk ci Touba ni nga xam te Cheikh Mawla noonu la bokk ci njaboot gi mag ci njabootu Serigne Touba muy quartier bu xaw a mel ne dafa enclavé ndax li war a enclavement gi mooy ku jóg fii bëgg faa dem daanaka mën na ne dangay ngay wëri ba corniche ndax boo booram juróomi bunt yi nga war a jaar jor guy mbindi amu ci benn boo mën a jaar ba dugg fa loolu nag ñu ngi koy réclamé di ko yéeg liwaale bu fekkee ne waa mairie ñooñu ci war a dimbale wala sëriñ bi wala comme mën a doon ñu ngi ci sàkku ndimbal ndax amul benn bunt boo ko mën a jaare ba dugg ko lu lu ne da ngaa xuus xuus bu metti ñu xam ne it euh, guy mi di doolu quartier bu ndaw ndax quartier boo xam te ne ña fa dëkk mën nañ juróom benn fukki junniy doomu aadama soixante mille habitants du quartier bu ndaw quartier boo xamante ne nii juróom-ñaari délégué ña nga fa du quartier bu ndaw quartier boo xamante ni nii boo ko dee natt mi ngi commencé ci buntu jumaay Tuubaa ji féete penku ba ba ngay digaloog ndindi commencé ci miiru baqee ba ba ba ngay dem ansaar loolu lépp ci guy mbind la te amu ci fu ñu war a setal te duñ ko setal te diggante bi yëpp njabootu sëriñ Bara rek ñoo fi tasaaroo kon bëggoon nañu gën dimbali ñu baax a baax a baax ci lépp loo xam te moyen la bu ñuy liggéeyee dëgg la xaaruñu ci kenn lañ man ña koy def waaye nag suñu ku ñu dimbali ñu jël nag ndax man damaa déggoon ca réunion ba la passé ñu ne sëriñ Maamoor moom lañ de teg ci zone boobu moom moo ko war a saytu ñun waa guy mbindit nag wax dëgg yàlla ba sëriñ Maamoor bu fekkee mas naa ñëw guy mbindit musta accès ci sëñ bi ngir mbale mi musta accès ci ñi nga xam te fédération bi lëkkale guy mbindit ngir mbale mi ñun ñii ci ñu ñun amu ci kenn ci ñun koo xam ne xam nga ko wala mu mos a jokkoo yow téléphone wala mos laa ne nag euh, koo xam te yor nga boobu responsabilité tey xamoo fa kenn mënoo faa jokkoo kenn mënoo nag diw laa fay jokkool bu fekkee ne yow la ñuy xaar ci seeni soxla kon soxla yi dana yeexal jëntiku kon loolu bëgg nañ ko xoolaat ku baax a baax a baax bu fekkee ab commission bu def lay jortu naa ne jaadu woon na commission ba lu kenn ku dëkk guy mi ni koo xam ne bu ñu ko laajee danañu mën a wax lu leer dana ca nag góorgóorlu nañ suñu góorgóorlu bopp am na ñetti benn yoo xam ti incha allah danañ ko solal gasoil danañ ànd ñu liggéey bi waaye doyut ndax suñu xëy lu mu tuut tuut am juróom benn benn wala juróom ñaari benn te ñett dong lañ amagun kon nag bëgg nañ ko ñu dimbali ci ay benn yoo ànd ak seen gasoil ñu liggéey mbooloom guy mindi nag daa néewut a xam ndax ñun suñu liggéey dafa bokkut ak ñeneen ñi ñuy liggéeyee ndax duñ ànd doo doon groupe di liggéey fa suñu suñu liggéey ëpp foofu la ñuy yóbbu mbooloo ma ñooñe nekk fa ak ñoom suñuy togg bu fekkee dañuy togg war a joxe ay xéewalit dañuy tekki suñu oto fekk kenn ku nekk fa mu nekk ñuy fekk ko fa jox ko fa loolu daal mooy li nga xam te mooy li jigéenoon a tënk ci loo xamante nii ni danañ ko wax ngir gàttal te lii ñuy waxit euh, doon na loo xamante nii ni lu ñu ñor la lu ñu ñor lool la ndax ñor gëm ñuy ñor moo tax ñu demandé parole pour mën koo wax ci kanamu sëriñ bi ngir loola saafaraw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi ziare ñëpp di ziare sëriñ Cheikh di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi ànd ak wér ginnaaw bu ñaanal Serigne taxaw mu yàgg fi ànd ak wér ñun moom daanaka jekk nañ bu yàgg soññ naa xale yi yëpp ak transporteurs yi ak borom camp yi yëpp ñoom ñëpp taxaw nañ jekk pour xaar ndigalu sëñ bi biñ depuis biñ diggee ndigalu sëñ bi ak léegi ñoom ñëpp nee nañ pare nañ ko ñëw ci liggéey bi incha allah rabbi danañ ko def ni ko sëñ bi bëggee ñu ngi soññ ñëpp nag transporteurs yeeg chauffeurs yi benn yeeg ak boroom kamb yi ak boroom machines yi ñëpp ñu ngeen leen di soññi di leen xaar ba ajjuma ak ñu teel a xëy si te teel def ni ko sëñ bi bëggee kon mbigeel li moom ñu ngi ci woon démb ak barki démb yaakaar naa soñ nañ ñëpp ba ñoom ñëpp jekk nañ incha allah rabbi jërë ngeen jëf. nun ni nga xamante ne bii nooy bawoo Mbàkke Mbusoo be Masaalikul Jinaan ci ndigalul sëriñ Thierno Bousso ñu fa nekkal mag ñi di ñaanal bu baax a baax Cheikh Mouhamadou Bachir moom Baye Sëñ Njaaña nga xam ni moo ñu daa indi fii ñuy teew ci jotaay bi muy yor kàddu gi euh, ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax ci fekk gën ko fekkewaat tey ñaanal bu baax a baax a baax njaboot bi nga xamante ni bii ñoo yor liggéey bi ci njiitul sëñ Cheikh Mbacke ak ñi mu àndal ñëpp di wax ne nañ góorgóorluwaat takkaat laxa yi xanaa def di ne ndigal moom munta ñàkk buñ ñu ko joxee ñu yëkkati suñuy kàddu waaye soññee bi moom mag ñi niñ ko defee doy na sëkk nun daal ñun sañ a soññ muy ndaw ñi ci dëkk bi ñu nekk muy Touba ak Mbàkke gee ñu jóge bisi jaaxaan yi ñu leen di tudde lañ cee def ci alal nañ ko ñëw def ci mbale mii ñii jóge ci Touba gi di dem Mbàkke ngiri football ak soirée ke xumbal lañ fay def buñ ko defoon ci mbale mi dana yomb lool man nag damay dellusiwaat ci la Cheikh Ibra Fall waxoon rek sant naa yàlla bu baax a baax ci bi ma dëkkee Mbàkke Cheikh def ne woon naa dëkk Mbàkke di dem Touba di ñëw kuy maye ndox dangay nekk ca pind ba waaye boo nekkee ci biir doo mën a maye kon ñun ñoo nga fee Mbàkke waaye fas na njéene lépp lu ñu def fii ci Touba kenn duñu ci man xaaruñ sëñ bi nag ci ay oto xaaruñ ko ci lañuy at mu jot danaa waaxu ba ca ña nga xam ñoo yor oto yi ma sàkku ci ñoom ñu jox ñu oto yi doy ñu ñëw jàpp naa ne at mu jot dañuy delloo sax ay oto loole tàmbali nañ ko bu yàgga yàgg di ci waxtaan ba njort nañ ne bu tey tey tey bu sëñ bi ne woon nañ jóg ñun daanañ jógee nañ daa jógee ñëwee nu raw nañ daa ñëwee keroog bi ma sëñ Thierno wooyee téléphone dama ko ne ndax am nañ ci ndigal mu ne ma waaw sëñ Cheikh mii bu ma wooy dama ko ne bu ñu amee ndigal rek nuñ ko daa defee day roog day yokk waaye du wàññeeku. kon nag ñu xamal ndaw yi ne liggéeyal Serigne Touba mooy li nga xamante ne bii mooy lay dimbale fii dimbale la fële kenn gisagut kuy liggéeyal Serigne Touba ñu lay yërëm xëyal Serigne Touba yi nag. day niru lu metti ci bàyyi sa njaboot xëy dem liggéeyi te bawoo fa dara waaye na leen leer nañ ne magasin boo mën a yor ak loo mën a yor ci liggéey boo ko fa tegee ñëw liggéeyal Serigne Touba mu wuutu la fa. loolu moom man leer na ma nañ ndax jóge naa ay ati at ndakaaru ñëw te sànceb jàmbur laa boobu bu jotee dama naan la bu male mi jotee moom dama koy tëj ndax amul lu ma gënal loolu. te it gis naa ci yokkute bu baax a baax a baax a baax a baax. jàpp naa ne lu nit di am ci lu baax jàpp naa ne man am naa ko te Serigne Touba doo nga ma ko may kon nag képp ku bëgg dara jàppal ci liggéeyu Serigne Touba bii sëriñ Maam Balla Bousso moom sëriñ Moulay moom sëñ Mbàkke Bousso ben njëkkee dem di bale ba ca buntu kër sëñ sooy bu mu génn ma a ah, da ngaa ñëw ci mbale mi ma ne ko waaw sëñ Bass laa àndal mun ma na nga ci góorgóorlu sëñ bu mag bi kat daa mas a toog ak mag ñi ba yàgg mu jékki jekki jóg di for ay bant de ci mbum mi di ëmb mag ñi ne ko lii nag mu ne leen sama dëkk bii de ku ci setal lu tollu xasab ma warlu la àjjana kon nag képp ku bëgg àddina bëgg àllaaxira góorgóorlu ci liggéey bi mbale mii njariñ a ngi ci loo xam ne kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem ñu ngi woo waa Mbàkke gépp nag di tàmbalee ca mag ña ca ndaw ña bàyyi bàyyiwun menn pénc nag teyit suñ teewaay bi teewal nañ képp koo xamante ne yaa ngi jóge Mbàkke di bale si donte jóge woo ca mbusóobe ga ñuy jógee am na yeneen gox yu fay jógee waaye yàlla dogal na ñu yéewu ñu jox ñu kàddu gi dañuy waxal waa Mbàkke gépp moo ne sëriñ bi lu mu nekk nun de fas nañ ci yéene nekk ndax amuñu lu dul sëriñ man de fa ma dëkk euh, mën naa ne la goxub sëriñ Touba bu wér la ndax fa la binde Masaalikul Jinaan saa yu may yeewoo ca jàkk jooju laa jullee fajar bu ma bu dee waxtu ma liggéeyut falaa koy jullee kon jàpp naa ne lu waaye di am ci sëriñ Touba ñun am nañ ca lu ko faw xa te foofee la gane àdduna kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo jàpp naa ne ñu dëkk ci dëkk bi bisu set bu ma dajee ak ndaw ñu toog ci benn place ñun ñuy liggéey dama leen di reetaan nee leen yéen de xoolaatu leen seen bopp dëkk boo xamante bi fayoo ndox marché yaa ngi ne tubaarkàlla lu fi lu ne ñu leen koy defal te buñ wootee liggéey nga bëgg a toog ci sa buntu kër dinaa ne a ak xaxaloo ñun ñu jógee feneen nga defe ne euh, tekkiwuñ dara fekk na boobu ñun raw nañ leen ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey jéggalu bu baax a baax a baax a baax ci kàddu yi sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg lool te wér mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba mbokk yi jullit yi mbokk taalibe bi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sëriñ Touba bu wér di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu boom guddal fanam dooli wéram ak kàttanam bi li mu yéene ci lislaam yéene ko ci liggéey sëriñ Touba suñu boom defal ci kaw njortam moom njabootu sëriñ Touba gi ak taalibe bi jullit yëpp waaye di ñaanal sëriñ Cheikh Abdou Latif mi suñu boom yàggal ko fi ba ndigal li nga xam moom la sëriñ Tuubaa teg ci loxoom mu ñaandu koog moom yàlla na yàgg lool te maandu wér ci barke sëriñ Tuubaa di sant bu baax rek kàddu yi moom fi sëñ Mourtala si wax dafa doy sëkk sëñ bi daaneel kàddoom ne jógee mbusoo bi ci Mbàkke dafa doy sëkk eh, wax naa ko sëñ Cheikh léegi yaakaar naa ne ay réunion yu bari jàll na fi waaye ñun dama ko wax naa ko léegi ne ko ñun de keroog bañ nopp bañ bañ yeewee ci mbalim daaw ma booba lañ tàmbalee waajal bi bisu tey jii kon daanaka bu ñëwutoo réunion jekk nañ ba noppi xanaa soññee dafa mënta ñàkk rek waaye ñuy soññ ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk fee ci Gédé yaakaar naa ne am na ay jëwriñ ñu fi nekk sëñ Mbay Caw nii sëñ uh, Taala Jóob ñu ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne uh, ñëwuñu waaye ñoom mel na ne rek ku fi teew ku ne rek yaa teewal ñëpp waaye rawatina bi sëriñ bi jëlee yëkkatee jël kàddu gi teg ko suñu loxo ñu war koo jëmee ci ñi bokkal nekk Gédé Euh, di ko tàmbalee ci suñu xalif bi nga xam mooy sëriñ Omar Bousso mi nga xam moo fi nekkal sëriñ Mbàkke Bousso mu gën ñoo soññiwaat gën ñoo ñaaxaat gën a ñaaxaat taalibe yi ci ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa joxe ci ci liggéey Tuubaa gi mel ne saa yu ñëwee day mel ne dana am ab des-des ci dëkk ba ndax day mel ne ndigal yi ab daayira rek lañ ko jox wala ay association rek lañ ko jox waaye ndigal day ndigal loo xam ndigal Sëriñ Tuubaa loo xam ne ka fa neel eh, Serigne Touba nekkal fa dëkk ba kooka daanaka ndigal ci moom la tàbbi kon mu war a jëm ci waa bokki taali bi nga xam ñoo bokk nekk gedd yëpp ci ñoo ndigal loolu ci ñoom la war a jaar ñëw ci ñun ñu mën a soññ taalibe yi waaye la loolu ba tey rek maa ngi jéggul wax day mel ne dafa des waaye sëñ bu si mi nga xam ne ñun jamono Serigne Alaaji Baara ba négée ni at mu jot saa yu lu ñëwee moom moo ñu koy soññ ba otom bi nga xam ne moom lañ yor mooy baar boobu at mu jot oto ba dana am ay sikk-sikk waaye day jël yëkkati alalam nde liggéey sëriñ tubaab bi du lenn lu koy gàll ko euh, du ma ko def day daa jël oto ba fere ci fere yoo xam ne suñ bi ndax mbalem sëriñ Tuubaa ndax dafa am fu teg suñ Cheikh Abdou Latif mi saa su ne dañ koy wax suñ Cheikh Abdou Latif lépp loo xam ne jógee na foofe ci suñ Muntaxaa ñëw fii man lu ma ci man dinaa ko def te loolu at jot noonu lay defee kon ñu ngi soññi ñi nga xam ne ñoo nekk gede muy association yaag daayira yaag borom saret yaag borom benn yëpp nañuy dimbali ngir jëm suñ Tuubaa ak yi fu ne bu ndigal ñëwatee kenn ku nekk na la jàppoon na nga ko bàyyi ñëw ci liggéey bi te xam ne liggéey bi kenn jëfalul kenn kenn ku nekk sa bopp rek ngay jëfal waaye ñi ngi soññ waa marché Guédé bi ndax ñoom it wax dëgg at mu jot danañ mobiliser jàpp ci liggéey bi jàppin woo xam ne day day na kaw suñu jot lan kon ñi ngi leen di soññ bu baax rek di soññ diggante Tundoo dég baax daad ak ba eh, allié foofu waaye nekk na xam ne ndigal li ndigal li Serigne Touba la kenn moomu ko kenn ku nekk ndigal loo xam ne Serigne Touba moo ko joxee kon ñi ngi soññ ñëpp di ñaan daal yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa te lépp lu ci waay jëf yàlla nañ ci daje ngërëmal Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ci kàddu soxna Astu Mbàkke moom Sëriñ Abdu borom dër bi moom Sëriñ Tuubaa di wax nag la mu daan wax rek mu toog fi ak rakkam soxna Waalo Mbàkke ak ñoom soxna May ak taalibe yi nga xam ne ñoo ko yaakaar ñëpp topp ci ginnaaw te yaakaar Sëriñ Tuubaa mu ñaanal nag Sëriñ Muntaxaa bu baax mu yàgg fii di nuyu sëñ Cheikh bu baax di ko siyaar di rafetlu toogaay bi bu baax di nuyu Mourtala Sy ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci biir saal bi soxna su dafa wax ne mi ngi san ñu mbooleem ki ñoo xam ne dafa ànd na ci kuréel gi nga xam ne da koo sosoon ngir sëñ Touba tax mu ko def soxna su dafa wax ne sëñ Cheikh kàddu gi nga ko jox sax mën naa ñàkk ndax ne ne li mu waroon a wax lépp waxal nga ko ko waaye ne mi ngi sant bokk bokkam yu baax yi nga xam ne tey fu ne ndaw jóge na fa ñëw fekk si ko fii te mbooloo topp ci seen ginnaaw mu wax ne ne dara ñuru ko lu weesu bi sa maamam bi nga xam ne ñu ngi koy waajal kon ndax ne ne bu mën a lépp mooy defal bopp lépp lépp boppam waaye ne bi mu mën lépp fas na yéene saa bu ñu wootee mu ànd ak bokkam ñëw toog ba saabu jataay ba jeexee mu soog faa jóge dem ñibbi ndax ne ne defut lenn lu ko gën a ñor lu weesu bi sa sëñ Tuubaa bii nga xam ne moom dong la ko yàlla sédd ci àddina te mu boole ci te mu bokk ci te boolewu ci bokk boppam kon xam ne lu ko gën a ñor ci sëñ baa nee na amul waaye nee na nag mi ngi sant ci ñu jigéen ñi di wax ñoom soxna waalo ñoom ñii fi teew ak yeneen bokkam yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ak ñoom soxna may bu ngeen demee na ngeen def na ngeen daan def duggaat ca daayira soññaat daayira te xam ne lu ñu doon waaj fukki weer ak ñaar ba mu des ñetti fan amatul lu ñuy waaj jëf moo ci des mu wax nag ne noonu ko Mourtala si leerale léegi rek ne ne mboolem koo xam ne toog nga ci ginnaawam boo agsee dina laaj ndax sa waa nga ca waar wa am déet ba nga xamal ko ne ko sa waa nga ca waar wa mu soog a jóg mu soog laa bàyyi nga toog ci wetam waaye nee na liggéey bi moom ñor na ko ñor goo xam ne nee na yemal yu koog ci àddina nee na nag yow sëñ Cheikh mi ngi lay sant sa cant ak boppam goo xam ne yemul a génn cant di wax nag ne bépp partenaire bu mu am ak képp ku mu xam ne jàpp nga ne ndax tey soppeem nga wala kóolëreem mu ngi lay tàllal loxo ci mbale mii man nag defe naa nun waa waañ moom sunu partenaire bi nu am te mu ànd ak nun ba bàjjan tàmbali ba bisab tey mooy Aïda Sylla la ngi koy tàllal loxo bu baax di ko woo mu ñëwaat jàpp ci ni mu ci daan jàppee ñu def ko nañ ko daan defee ci jàmm ak salaam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ni daal nañ ko daan defee noonu lañ ko fas yéenee defee waat mu mel ni raw na mu daan mel ndax yére ji tey la ëpp te jàpp nañ ne tey la man-man mi gën a ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jottali leen nuyoo kilifa yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Bassir nuyoo bi itam mu yëkkati ko njëkkee ci soxna Asso teg ci xalifa général teg ci taalibe yëpp ak Cheikh Sepp ak njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp ak sama mbokk yi ma leen dal mbokki Mbàkke yeeg Mbuso bi waaye may nuyu ñu toog ci jataay bi ñëpp xam naa kàddu yi tey dañ koy tënk rek ndax tey mooy ñetteelu jotaay bi buñ ko fàttalikoo jotaay bu njëkk ba daanaka man rek maa wax ngir di nuyoo ak soññee ak bëgg ñu waajal ko ba mu ñaareel bi it am nañu wax man wax naa tey ji itam gisoon naa ne bëggoon nañ ñi fi nekk ñëpp wax mbaa ñu jiite mbooloo ñëpp waaye xaju fii gannaaw xaju fii dañoo bokk lu ñuy wax kon ñu wax rek mu doy ndax ñoo bokk lu ñuy wax ndax kenn ku ne nu mu baaxee rek moom ngay wax wax génn see xalaat yu rafet moom ngay wax ñëpp xalaat yi fi jaar yëpp yu rafet la yu mat la yooyu itam ñi waxut itam xam naa xalaat yu mel noonu rek lañ waaye dafa xat temps bi moo gàtt bu ñu ko seetee dama bëgg jotaay bu nekk am ñu ca wax ku ca wax tayee waxat kuy war dem ci rajo tayee waxaat du tax mu daj waaye ñi ci des it ñu yóbbaale leen ñi des maa ngi am lu muy njëkkee lu ma ndef muy jottale ay càdd ay kàddu yu nuyoo ak nuyoole leen ak ñu tëj jataay bi ak yu ma ci dolli bis ni tey waxoon naa leen ne dana yónnee ci kër yu mag yi nga xam ne donte kuy taalib sëñ Tuubaa mu ci yéene koy seexub sëñ Tuubaa yi tàllal naa la loxo waaye dafa am ñoo xam ne seen doxin rafet na rafet moo xam ne faaw ñu tudd leen faw ngeen ma yónnee waat ndaw ci seen i kër muy kër sëñ Daaru Asan ak kër sëñ Madiba seen ndaw mi ngi toog kër sëñ Madiba sëñ Abdou bi ci bàyyeekoo mi ngi nii toog sëñ Aliou te teewal fi ñëpp ma waxoon leen ne naa wax naa yónni Aliou ak si Mortala si ñu dem ma ci kër yi te bu ñu demee bu ñu noppee ñu jàll kër sëñ Rijaal jàll kër jaar jaar sëñ Rijaal ba xam mooy xalifa ba jaaral ma ci sëñ Moustapha Seck loolu nag naa ca dolli ne sëñ Moustapha Seck dafa ñëw ci jataay bi te maa ko waxoon mu ñëw ngir moom nu yóolu leen ak moom ndax ni demee la moom bàyyam dafa amoon tafeex gannaaw bu amee tafeex sëñ Touba Cheikh Rijal bu noppi dafa am tawfeex ci sëriñ Muntaxa sëñ Muntaxa it moo ma ko waxal boppam keroog ba mu wàccee daa fekk mu di Macky Sall dafi ñëw mu ne ma bul nekk ngan gi bul ci sew nekk demal gungeel ma sama xarit ba te nga ne mbooloo bu ko am tawfeex ci man la dama sobe woon lool ma jàppal kóllëre lool fa moo sa fekk damay ree rek ba mu wàcc tey ma bëgg gungeel ma ko ñu ko sëriñ Touba te mu fi jógee ba tey sëñ Moustapha doxin woowee da koo mat matale sëkk rafetal ko lool sama ginnaaw ñu ànd te liggéeyal sëñ Tuubaa ci ginnaaw sëñ Muntaxaa ba ci ndoog yi bàyyam daan togg bu ñëwee da koy yokk lool at mu ne itam dana beesu na fam yemoon daaw te mooy laxasaa yu ànd ak taalibe yi waree génn dëkk yi mu boole leen rakkam doxin ma rafet lool daaw itam mbaale mi bi ñu ci ñëwee moom laa mujj a yewi gannaaw bu ñu yewee ñëpp ca marax laa ko fekk ca buntu kër sa Béthio fa la ko yëwee ak mbooloo bi loolu nag laa bëggoon mu ñëw mu nuyoo leen ak moom ngeen xàmmee ko xam taxawaayam moo taxoon mu ñëw tey kon maa mi ngi ci biir liggéey sëñ may xalifaam di xalifaam kër Cheikh Diall itam daaw yabal na mbooloo mépp ñëw ànd noonu liggéey maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm moo tax ma yónnee woon ci seen kër yi sëñ Mortala si mu ànd ak Aliou Niang ñu dem ci kër yi soññu leen ñu wàññalaat ko nañ ko wàññale am daaw noonu la laa woo kër këri seexi sëriñ Tuuba yëpp ñëpp nañ ñëw ñu liggéey bi ndax sëriñ bee moom te noo bokk bi bokk yaakaar sëriñ dem ci yoon waa ngi noonu nun ñëpp nan fabu kenn ku ne loo def sa bopp nga defal loo jëf sa bopp nga jëfal sëñ bi ñëpp lay fay kenn ku noo jëfee nan lay fayee nañ liggéey luñ manqué nag moo xam ne mooy doxal liggéey bi ñëw laaj ma ko man bu ma ko amee dinaa leen ko jox bu ma ko amul dinaa ko fexee jox leen ko ba liggéey bi dox liggéey bi dox rek moo ma yitteel ñoom nag jële naa sëñ Cheikh moom mu tudd léegi jëlee naa sëñ Moustapha waaye Cheikh Barlaat ak sëñ Abdoulaye Sylo seq na ma ñoom collègue koo xam ne bu ñëwee nii ci man ndaw ne ma nanga manqué leen loolee dinaa ko wut ndax Cheikh Bara na ma ne am na loo xam ne maa koy génn ci sama poos jox leen ma ne ko bala nga ko génn ci sama poos sa naa ko yëg man génn ko ci sama poos joxe ko joxeel la ko joxewaale la ko joxewaale ko kilifa yëpp loolu rek laay wax wax guy mel ni ñu xam ne liggéey bi noo ko bokk ñun ñëpp noo ko bokk waaye man maa ngi fi nekkal leen fi bu leen ci dara jaaxal bu leen ci dara sonal fuñ ci toll bu leen ci dara ma na ñëw ci man danaa nag ñoom defal leen ko ni ko ko bëggee kon nag maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp nañ wa nañ waaj walxamis alxames ci takkusaan ñu bokk ñu daje ci kër sëñ Tuubaa bi ci Daaru Manaan danaam tuuti soppi ku ci am jili ñang wanuma dem suba xamal ma ne ma am na ay yoon ay waar yi lu ñuy defar yu ñuy defar ci biir kon dañ def ab baas ci buntu ba ba jàmm nañ fa mën a toog danañ fa toog waaye danañ jàllu kër dañu xaadim ak kër eh, Ousmane Diop ba ma jógee léegi fa jaar yu yàggal liggéey bi booba ba liggéey bi dara bañ a manqué dara bañ a soxla li ci des Maodo bi wax na ma léegi ne ma regroupement auto village yi wax nañ ne dañ fi yónnee si ndaw wax yi maa ngi leen jox ñi ngi déglu ma jox leen bis ngir ñu yàpp ci liggéey bi bis boobu nag dañ nekk bañ tàmbali liggéey ñoo xam hydrocureur yi ñu ci ndox mi lay ngànc moo xam ay kër lay doon yoo xam ne kër sëriñ bi lañu ñu ñu wéy di ci wala lu mën a xew na leen jox tabir aw waar ci waa ci liggéey sëñ bi waar woowu ñu ñu séddoo ko matale ko rafetal ko liggéey lépp ànd ko léegi ah lépp ànd ak mat ànd mat ba li ñu ci bëgg nu am ko ci mooy sëriñ bi sant nu gërëm nu jaajëfal nu ñaanal nu